ñu di leen jaale seen i mbokk en tout ñi fi nekk ñëpp mën naa wax ci seen tur ñu di leen jaale bu baax seen i mbokk di leen ñaanal yàlla mu xare leen àjjana mais aussi di wax ni naqar la pour ñun waa Sénégal chaque jour chaque semaine chaque mois ñu gis suñuy doom yu génn réew mi dugg ci ay gaal di ñàkk seen bakkan parce que amuñu ci réew mi li nga xam ne neex na leen amuñu ci réew mi ay opportunité pour mën fi toog pour mën a liggéey ba mu jaral leen ñu sacrifier seen dund pour dem feneen muy naqar ci waa réew mi di naqar ci waajur yi di naqar ci ñun ñi nga xam ne dañu bëgg réew mi am ay opportunité pour suñu jeunesse am ay opportunité pour waa réew mi ñu toog fi tabax suñu réew dafa réew mu mucc ay li muy wone mooy échec échec total ci politique de jeunesse échec total ci politique d'emploi échec total ci politique de gouvernance donc loolu may tàmm di wax xale yi bu leen demati fenn parce que ñi tax réew mi demee nii léegi ñu abal ñu soreetu ci ay fan la toll xale yi ñu toog ci réew mi ñu defar réew mi ñu tabax réew parce que dañu leen soxla pour construire notre pays loolu laa bëggoon commencer li ci des mooy je pense ñi wax yëpp wax nañu li fi des tey mooy ñu dellu tënku ci loi ñu dellu tënk ci constitution mooy lan décision bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel jëloon te madame le premier ministre wax ko léegi Moy élection du président Macky Sall da ko organiser avant la fin de son mandat L'année lu mu def sant ñu ko ko wax naa ko donc ma jàpp ne ñun ci loolu rek la ñuy continuer di ci tënku di à une mobilisation nit nous waruñu waru nous bàyyi ñu ñuy proposer Waru nous waruñu waru nous fléchir mobilisation bi nga xam ci la ñu nekk depuis le début taxaway rek moo fi def wax amatul na wa Sénégal génn taxaw comme ñëpp niñ ko defee dans le passé donc di wax ni loolu moo fi def ba élection bi ñu organiser ko avant la fin du mandat président amul lu muy daw amul lu muy de transmettre le pouvoir comme niñ ko ko transmettre woon mu def passation de service en bonne et due forme lolou rek la ñu bëgg bëgguñu leneen donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax la mobilisation continue duñu ñu bàyyi tant que li nga xam ne moom la ñu bëgg euh, amul may sant ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum. merci président Aliou donc on donne la parole au président